mbokk yi dal leen ak jàmm kawtef amatina ab gendarme en service bu nekk ca division transmission et informatique ca caserne Samba Diéry Diallo moom la police teg loxo beña di ab en service moom la police teg ci mbirum extorsion de fonds maanaam laaj nit ñi ay xaalis ti lu dut seen coobare bu ñu sukkandikoo ji journal bi di Les Échos mi joxe information bi moom waa ji daf doon profito ci statut homme de loi bi mu yoroon doon kar nit ñi doon dox ci mbedd ñi takkun masque di leen laaj xaalis di leen menacer naan leen leen suñu fayut dama leen di embarqué moom waa ji nit ku nekk 3000 francs la la doon laaj mbir yi nag mu ngi xewee ni ki bërki démb ca géejawaay ci quartier bi di cité enseignant moom gendarme bi ak ñi mu ànd lañ doon liggéeyee moo dikkaar nit ñi doon dox ci mbedd yi ci jamono ji nga xamante ni coronavirus bi lëmbee na réew mi ba ñu daal di wax port di masque obligatoire ñoom nag ca lañ doon profité di laaj nit ñi nga xamante ni takkuñu masque ku ci nekk te loolee du seen liggéey nag dafa daal di jàdd yoon def lu ñu naan usurpation de fonction ba pare nag nekk ci zone boo xamante ni du zone de compétence am waa ji la ko feeñal ba police daat koy teg loxo du kenn ku dul benn waay boo xamante ni romb na ko muy toroxal nit ñi ak di nangu seen xaalis ca la ko waa ji soupçonné daal di woo waa police ay waxtu rek ca la waa police daal di débarqué teg ko loxo daat koy jàpp yóbbu ko ca brigade prévôtale jamono ji waa ji nag moom mu ngi ci guddi gu bët seetagul Sénégal waar bu gendarme yi di dóor policier yi di dóor douanier yi di dóor ana fan la civil yi jëm ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a teg yoon ñin ñi jaadu yoon bu ñu wàccee yoon xawma fan la nit ñi jëm lii nag mooy kawteef dëggantaan jërëgéen jëf fii la ñuy yam ak yéen daanu leen toppal mbir mi indi leen ci yeneeni leeral